jërëjëf Uras euh, Info ñu ngi leen di nayu di leen jaajëfal bu baax si yittewoo bi nga xam ne yittewoo ngeen ko lii di seen YouTube Uras Info waaye euh, lii di sit internet bi ak euh, page Facebook bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di ñaan tamit ngeen yokk li nga xam ne mooy abonnement yi abone di abone ci seen YouTube bi ndax xam ne lépp luy wàcc rek di ngeen ko mën a am waaye di joxe seen appréciation seen commentaire yooyu yëpp tamit day nekk na loo xam ne lu am solo la ñu ngi leen ci xaar bu baax baax waaye tamit euh, seen euh, iras info ñëwaat ak yéen ci wàllu sport benn ribrib buñ tuddee iras esport, mu nekk ribrib boo xam ne lépp rek lu aju ci wàllu sport euh, national ci biir réew mi jëm ci football basket handball dem ba lamb mboolem rek xeetu tàggat yaram yi nga xam ne ñi ngi koy def lépp rek dara du leen ci rëcc si wàllu information ci wàllu ay e, e, show yoo xam ne dinañ leen ko e, andil lundi bu jot tey nag mooy nekk premier numéro di lundi 10 février 2020 seen Uras Sport ñëw ak yéen ci li nga xam ne mooy barabu tàggatukaay yaram yi suñ ko waxee rek xel yëpp dañ daj li nga xam ne mooy infrastructure danaa si ñëwaat léegi waaye di leen wax ne rek lépp loo xam ne aju na ci wàllu football euh, jëm ci championnat national bi muy Ligue ba Ligue 2 waaye tamit euh, national ba national deux di troisième ba quatrième division bu Sénégal dinañ leen ci ñëwal waaye ñambaasal leen ci li nga xam ne mooy aju si euh, newetaan di championnat populaire yi nga xam ne dinañ am fii sunum réew waaye tamit baaxee leen kan, championnat yi nga xam ne mu ngi xew ci biti doole ko ci france jàpp espagne ba italie jàpp allemagne ba angleterre yooyu yëpp rek mboolem fu doomi sénégal nekk rek ci afrique ak aseg europe ak fu nekk amérique dafa yëngul ci wàllu tàggat yaram ay information dara du leen ci rëcc incha allah ñu ñëwaat ak suñu numéro tey bi mooy infrastructure mooy barab yi nga xam ne fa la ñuy tàgg tàggatee kaay yaram ñu seetlu na sunum réew dëgg dëgg nekk na loo xam ne ku ko rafle la ñàkk na ko lool euh, bu ñu waxee estade yi nga xam ne rek ñoo yàqu ci biir réew mi te defaruñ leen waaye capital régionaux yi doo dem ci benn capital ci quatorze régions yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal fekk fa benn estade boo xam ne rek dina mën a dalal li nga xam ne mooy match international lu dul benn stade Lat Dior bi nga xam ne moo nekk Thiès loolu nag dafa am lu muy teg tegtale mooy lu muy wane mooy ne kilifa yi autorités yi responsables yi dëgg-dëgg ñàkk yittewoo bi nga xam ne ñàkk nañ ko yittewoo li nga xam ne mooy dëgg-dëgg lu jëm ci wàllu infrastructure yooyu noonu dëgg-dëgg nag ñu leen di ñaax di leen di ñaan ndax eh, xale yi pour ñu dem jongante ji seen morom yu nekk Afrique ak ci monde bi man faa jëlee ay ndami ki raaya pour dugal ko ci biir réew mi dëgg-dëgg loolu dafay fekk ne nga am barab boo xam ne da nga fa tàggatoo ndax ku wax euh, euh, tàggat yaram wax barab bi nga koy defee masalan ki waxoon tey wàllu njàng ak njàngal da nga wax école ku wax wàllu santé da nga wax hôpitaux yi ku wax wàllu armée da nga wax camp kon nag sport force barab yi nga xam ne fa lañ koy defee dëgg-dëgg état bi taxaw si taxaw ci bu baax a baax ndax gis nga matti Sénégal bi nga xam ne moom mujj ci qualification euh, Coupe d'Afrique bi gis nga ko nu mu nu mu tëddee woon terrain pelouse stade la Dior bi dëgg dëgg melokaan bi nga xam ne amoon na ko keroog ba xale yi sax am na ñoo xam ne dañ fi jëlee gaañu gaañu dëgg dëgg loolu nekk na mbir yoo xam ne mbir yu doy waar la mbir yu mbir mbir yu doy waar la te dëgg-dëgg nag mi ngi bëgg a yàgg stade Demba Diop bi ñu ko tëjee yàgg na stade Léopold Sédar Senghor melokaan bi euh, dëgg dëgg ruslu na yooyu daal nekk na mbir yoo xam ne foo ko nattu rek dëgg-dëgg euh, weesu na ko kon nag ñu ngi ñaanaat autorités yi ñaanaat responsabilité ñu fexe ba dimbale euh, ndaw yi waaye dimbale jeunesse bi waaye dimbale sportif yi ñu am barab yi nga xam ne dañ fa mën a tàggatoo seen yaram ndax bés bu ñu waree génn pour dem fi nga xam ne mooy Afrique